Sénégal maa ngi ki si nekk ma dal def si wàccuwaay ah. euh, mu mel ni rek bi passé euh, magistrat yi sax moo tax may def vidéo bi bi passé dafa mel ni dañoo génn benn texte pour maanaam wax ñi nga xamante ne ñooy euh, les avocats de l'État la ñoo ñu respecté décision bi nga xamante ne juge bi def na ko si Ousmane sonk voilà ce que veut dire que foofu li ñu ciy jàng rek mooy magistrat yi dañoo commencé di fippu daal noonu laa ko mën a tuddee di fippu te wax nañu dëgg tamit parce que am réew justice moo yor Ousmane Sonko yàgg na ko wax ne magistrat yi amaana sax moo ñiy jub ñoo ëpp te noonu la demee ba tax na léegi ñu ngi gis ne ñu ngi commencé fippu ka nekk xam na ne jàng droit dafa metti jàng droit dafa compliqué jàng droit yoon bi moo gudd donc bu ñëwee ba ak si lu mel nii bañ ko caaxaane ngir nguur gaa xamante ne dala jeex par force mu neex leen mu naqari leen dañoo dem ndaxte day jeex duñ fi toog ah donc euh, magistrat yi ñu ngi leen di jaajëfal ci seen décision boo ngeen jël ak li ngeen bindee texte bi ngeen bindee nii la fippu dafa jot ci côté yëpp nag fippu waaw fippu dafa jot ci côté yëpp waaw yéen yéen a yor dëkk bi waaw bu ngeen euh, bu jéngee rek dëkk bi jéng te xam naa ne yéen ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat ngeen. te ñu bëgg seen liggéey ngeen moo tax seen texte bi ngeen génn bi parce que kontaan na ma si trop te nii la waaw état day jeex te magistrat yéen da fi continuer nekk ba retraité waaw ñeneen ñu engagé ñeneen waaye quant à état gouvernement mandat la rek bu jeexee ñoom ñu dem donc na lépp tegu si yoon encore une fois di leen jaajëfal bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen félicité waaw kay merci beaucoup les magistrats